يا همة الشيخ اهذري لنا بهذا المهذر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بعيني كمن رام درك الوف أيضا قد أكثروا ولكنهم قد غادروا متردما فآثرت هب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريما فوالله ما في القلب حظ لغيره فغير رسول الله ليس لتعلم أشار إلى مثن فثال مثرمدا وإذ رام مسك الماء أمسك ملهما وإن قريشا عيبوه وثغروا وسق له ذا الجو بدرا معظما ورد له سمث بعيد غروبها وإذ كذبوه قد أنزل الحق مهكما وهدم أهدابا برمية كفه فيا عجبا من رمية حين هدما هدى الله أقواما بنور خوارق وبالسيف يهدي الله من كان أجرما يفيد علوما فائدات ومغنما يبيد جيوسا للضلال عرمرما فعما هداه الأرض كرها وطاعة فعرب وعجم أنثد الكل عمما وحتى أتانا الدين والعلم والتقى ولله شكر بالنبي محتما وقد ثار فينا المسلمون وعندنا أئمة علم صالحون تكرما وفينا رجال سابقون وهندما للأقطاب قد منهب كندا متلثما صلى الله عليه وسلم بعد كنت ننتي ديوانا بي لتقين انتي على محمد صلى الله عليه وسلم كرقنا وانا كيبو كو قمنا ساكو ما جوتي بقين انتي على محمد صلى الله عليه وسلم yaa ngi sàkku loo xam ne dafa jomb te dafa xaram yaa ngi mel ni kuy sàkkoo jàpp weer wi ci say baaraam wala ci say loxo wala ngay sàkku dellu si démb muy tay te ñaar yooyu yëpp dafa jomb de lu aju ci lu jomb nag loola it dafa jomb mu andiwaat beneen melo di tegtale ne moom kat jot ko ci bëgg yonent yàlla Muhammad dafa jomb mu ne kaman raama yaa ngi mel ni ki nga xam ne dafay sàkku darkal waf si jot melow yonentu aydan ba tay yaa ngi mel ni ki nga xam ne dafa bëgg melal yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci mboolee mi meloom loola it jomb na ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ay meloom amul dayo waxoon na ne ni yàlla day rek na la yonentu day bépp melowu yàlla meloo jox na ko yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa bam def benn daal lenn daal la ko mayit mooy uluhiyatu yonentu lu nekk man nga ko melal waaye sañu loo wax ne moo yàlla waaye boo xasee dindi uluhiyatu daal lu dul loolu rek yonentu mel la noonu moo taxoon muhammadul busayri ne دع ما النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدها فيه واهتكم wansub ila daati ma sita min sarafin wansub ila qadri ma sita min azami fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yuriba anhu naatiqun bi fami kooka dayoom amut fu mu xem moo tax kuy sàkku rek melo yonent yàlla muhammad nga bëgg koo matal dëgg-dëgg yaa ngi sàkku lu jomb de moo taxoon ibnu farid wax ne wa ala tafannuni waasifihi wa xusnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi mu ne yonente yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam ay meloom yu wuutee ay meloom yu bari ak taaram bi ko yàlla jagleel tax na jamono dana jeex terewut ak ñi koy woy ni mu bëree moom bu sayru yi jaar na fi kaab ibnu zuhayru jaar na fi mawlaana cheikh ibrahim jaar na fi ibnu muhayyab jaar na fi ñi tagg yonentu kenn xamul ni ñu day waaye mu ne wa fii ma lam yusifi te ba léegi rek bàyyi nañ ci yonent loo xam ne ba léegi kenn tuddagu ko de ma ne ah xam naa nag moom ba muy wax loolu bàyyi ñëwagut waaye bi bàyyi ñëwee moom yaakaaru mu ne baal na yonentu dara de ndax mel na yonentu ci melo woo xam ne kenn musu ko ko cee melal wax na ne fa shiari awsaaful amini wa innahu adimatu kufin wa huwa ahmadu yasruqu man tagg yi may tagg yonent yàlla muhammad loola mooy meloo yonantu nag aw saaful amin te nag lu ñàkk ak kem la mooy kenn muftu taggee yonantu comme ni ma koy taggee ndax sama tagg man duhut tagg waaye yonantu yàlla Muhammad ci boppam moo yooxu di waxi meloom kooka nag moom fiñ ne tagg na ko lépp ah kenn du ko weddi de tagg na yonantu ci bépp ci bépp melow yàlla jox yonantu rek baay tagg na ko ci moo tax mu قد اكثروا برلن اي تاغ نيوم ني دان تاغ يوننتو ولكن واي لي في نيك قد غادروا باين في متردما اسباس متردما برب نيوم نيب تاغ نين واي باين في باين في ديغ بو خامن كو بغ تاغ يوننتو بو نيوي فك كو فا دي موي كون تاغ يوننتو دو جيخ من فآثرت حب المصطفى دون غيره ولو أم كلثوم ولو كان مريم من نك من باي فآثرت أفلنا موي لنا وبال مصطفى بغي كوني تان موي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دون غيره ولسكن كنن كودن موم مبغيلو يونت دال تولي ومكو مبغيلو كن امنا فم واخ فخني ما ندخ جادونا بغي لنن لودو يونت وهل اتا حب غير محمد فحب سوى الماحيل عمايته والفسق ndax dana jaadu nit ki di bëgg lu dul yonentu yàlla muhammad ndax taar yëpp mooy yonentu wal husn wal ihsan minhu te ma aadama du bëgg lu dul di rafet ci bëtam te nak yonent yàlla muhammad moy jëmi taar kon nak bëgg lu dul yàlla muhammad baye mom dafa jàpp na lolu mustahil la ko xamne nak jàpp nga na bëgg ku dul kooku mustahil la do tollale mbëggeelu kenen ak koku ku baye bëgg rek ci bëgg gim la bëgg gim bëgg yonent yàlla Muhammad ci la la bëgg moo tax mu ne ëffal naa bëgg yonent yàlla Muhammad ci bëgg ko dul moom walaw ummu kalsuumin donte ummu kalsuum la walaw kaana donte dafa nekk Mariama di Mariam ummu kalsuum ak Mariama li ma leen di bëgg bëgg dégg nga ci yonentu rek laa leen bëggee de waaye amuñ lu tool ni tarfatal ay nii ci dégg nga mbëggeel suñ ko comparé ak bëgg gi ma bëgg yonent yàlla Muhammad am na ñu ne ay soxnaam la am na ñu ne ay doomam la waaye lu mu ci mëntu doon rek ñu xamee daal bàyyi moom xolam bi amul keneen amu fa place ku dul yonent waxoon nañ ca saari man ne innani qabla al baraya xubbuhu suxla jinaani fa huwa akli wa soraabi wa huwa diini wa jinaani mu ne bëggoon naa yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te booba yàlla bind gud mbindee fi su may lekk moom laay lekk moom laay naan mooy sama samay tool wa huwa zawjaatul xisaani ba ci sama soxna yu taaru yi sax dégg nga yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam kon kooku bëggut lu dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa wallahi ma fi lqalbi xazun li gayrihi fa gayru rasulillahi laysa li taalama bàyyi na fa wallahi gëñ naa ko ci yàlla maa fil qalbi dëdd nekk ci xol bii xarsun benn cër li xëy di ñeel ku dul yonantu sama xol bi ku dul yonantu amu fa place mukk ah comme lam waxoon xalla fil qalbi makaanan mustaxilan li sawaay wàcc na ci sama xol bi xalla fil qalbi ma ne nag nañ bàyyi xel qalbu bi da koo maarifaal kon nag mën nañoo jàpp ne xolam ba bam àndoon xol ba nga xam ne moom la Mawlaana Cheikh Ibrahim am muy bàyyi mañ xamoon mu nekk ca Medina xol boobu ku dul yonentu newu ca waaye nag mën na gën a xóot te muy xal bu rabbaani xol bi nga xam ne dégg nga moom dafay dund te du dee ba mukk mooy xol bi nga xam ne moom la ko Muhammadul Misri yi doon woy naan ko ayaa qalbu in kaana zamanu lam yarak waltabasa al amru ala man ankarak فكم تجل أخروي ما ترك شيئا سوى قلب لديكم قد برك قلبو بودي دارا نهو تلود جميل انت على محمد وكم وي مظهر فين وايو جميل انت بث الله يسلم قلبو بلا يالا وحنه ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن قجمة سما أثمان أثمان بيبي الله قجمة سما صوف ففايد بيبي الله waye yalla neena xajuma fa ndax fu ci nek rek fofa ben melo ولكن وثاني قلب عبد المؤمن قلب بابا دغ دغ موي مولانا شيخ ابراهيم رضي الله عنه موتاخ مو ني سما قلب بوبو نك فوالله ما في القلب حظ لغيره قلب بوبو دارا نيو فا دارا امو محمد فغير رسول الله ديت كدود يونت يالا محمد ولا فليت تعلم فليت لتعلم ديت موي خم موم خول بوبو غير رسول الله كدود يونت بي صلى الله عليه وسلم Happiness TV, la Zwadi أشار إلى مذ فثال مثرمدا وإدرام مثك الماء أمثك ملهما وإن قريشا هيبوا عيبوه وثغروا وسق له ذا الجو بدرا معظما بين أشعر جنجنا مؤمن تعلم ومن صلى الله عليه وسلم إلى مذن تاو نير فصال مدال ديول مصرمدا ديلو دباتيكو وإدرام بثاكو مسال ما يجابون دخما أم سكتينكم ملهما بير موم ويلنيو واو ينكي والموم نيروه muy junj na xissa booba nga xam ne doxoon na diggante yonentu ba ak arabi yu ba ba yonentu bi taxawee ci kaw min barba di arabi bi ñëw ne ko yow yàlla muhammad ñaanal ñu yàlla suñu jur gaa ngi alaku suñu waaw gàncax gaa ngi yàqu bekkoor bi sonal nañu lool yonentu daldi di ay loxom ne allahumma asqi bilaadaka warham ibadak yow yàlla nandalal sa suuf si te nga yërëm say jaam ah ca saasa rek asamaan niir yi commencé dajaloo mu xiin ca saasa abi ayub al ansaar yi ne maa nga weeroon sama tàndarma ma ne yonentu may ma ma dem weeri sama tàndarma ji yonentu na ko gaawal boo yéexee taw bi fekk ko fi mu ne ba may buub tàndarma ja palaat ba ma mujj roñ genn wàll ga dafa tooy genn walla gaa tooyut ndox ma fekk na ko fa ajjuma mu déparé di taw ca ajjuma samedi dimanche altine talaata àllarba alxames ba ajjuma delsiwaat yonentu taxawaat ca minbar ba di xutba arab yi bu fekkaat ko fa ne ko yow ki yàlla yónni ñaanal yàlla suñu kër yaa ngi suux suñu waaw daaba yaa ngi dee nit ñaa ngi lab ñaanal yàlla mu téye ndox mi yonent ne allahuma xawaalayha wala alayna daal ñaan yàlla walbati ci àll bi walbati ci xur yi ak kekk waaye bu ko sotti ci suñ kaw naka la ko yonent waxee rek niir wa daal taxaw ca saasa mel ni bouton buñ bës mu fay loolu la ne wa idrama bam mu mom yonentu maskal ma yi jàpp ndox ma am saka téye na mulhaman bir mom muy kuñu ñuy yenkewal moom niir wa wa inna quraishan naka wa quraishu ayabuuhu ayibal leen yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam wa saxaru ñu tuutil ko mu giir gi nga xamne ci ñoom la yàlla yónni yonent yàlla moom sallallahu alayhi wasallam waye gëmuñ yonent toppuñ ko bal dañ ko ayibal donte sax gisuñ ci moom ayib waaye wax nañ ne dafa dof ne saaxir la wax nañ ne ab tar la xas wu ne rek xas nañ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bañ a gëm diine ji nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andi na ko fi naan waaw xeetu tuutal gu nekk daal tuutal nañ ko yonent bis ñëw na sax mu nekk ca Kaaba ga di julli ñoom ponkali yéeféer yi daje ne ana kan mooy dam jël sebbilit sële sotti ko ci boppam Muhammad male sëgg fële naan day julli te day ngisal rek li muy def dara la ci gëmut ñu ne oqbat عقبة بن أبي معيط مودم جل سبيلث نيو توركو يونت الله محمد صلى الله عليه وسلم فاطمة فك كوفا دندل كوكو يونت موم فم سغ صح بوثيوت بام في جي بسل مل نك كي لا ربوا قريش يب اللهم عليك بعمر بن هشام عليك بعقبة عليك بالشيبه mboolem ponk li waa Quraysh yi yëpp mu rëbbu leen boole leen ak yàlla bàyyi na mboolem kum tuddoon kerek kerek xare ba dara ray nañ la de kon waa Quraysh luñ xam rek teg nañ ko yonent yàlla Muhammad ci nattu waaye xoolal la ko yàlla fayee bàyyi na wa suqa xotileef na la oo ñeel ko dal jaww jaawa ji badran muy weer muazaman ba di bu ñu màggal ah bi nga ne yàlla rañaanee na ko bi mu ñëwee woote waa Quraysh yëpp ne sama borom rañaanee na ma big dem naa baytul maqdis ñu ne ko lu nekk yàgg nga ko fee wax nag ñi la koy dëggal waaye lii moom doom kenn ku la ci dëggal Babacar mi dof mu la daan dëggal Babacar mu dof mii daan la dëggël ci li sax daan la dëggël cee nga daan wax lii moom xam naa ne du ci dëggal de ñee nañ wooy Babacar ñu ne ko Babacar dégg sa mbokk mi waxam mun na nu wax ñu ne nee na moom biig dem na baytul maqdis mu ne yen cëm waxu leen fi dara man kii ma koy dëggal xabaar bu jógee asamaan kon su ma waxee ne dem na baytul maqdis loolu du ma ko weddi yonent na ko wallaay Babacar noonu la demee sax de yàlla rañaane na ma juróom-ñaari asamaan waaye dama xam ne seen gëm-gëm foofu la mën a toll rek ñu ne ko waaw moom duñ ko gëm mukk loola xas na passé waaye boo bëggee ñu gëm la nag weer wi ñi janoog ñi ñëpp nga yor suñuy bët woo ko ba ñëw ba ñi ñëpp janoog moom nga xar ko ci digg ba genn wàll gi tegee nii genn wàll gi tegee nale su boobaa moom loo ñu waxate ñu gëm ko jibril ñëw ci yonente yàlla muhammad ne ko sa borom nee na weer waa ngi ci sa ndigal loo ko digal rek mu def yonent bi daal di ñaan yàlla yàlla xaral ko weer ñi teg ci bët xar wi demee ndeyjoor gëla demee càmmooy mu ne ko waat dajalewaatal mu dajalewaat doonaat weer ñu ne in haada illa sihrun mustamir walaay muhammed njabeer nañu rek iqtarabati saatu wa nchaqa alqamar alquran ñëw dëggal ko wa in yaraw aayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir kon yàlla fayee na ko xottil na ko weer wi digg bëccëg ñëpp janoog moom moo tax bu fayri ne loolu yàlla daf ko ko fayee ci li nga xam ne moom la xaroon dënnam ba aqsamtu bil qamaril munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabrurat al qasami kooku mooy yonent yàlla moom sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na waruddat lahu samtun buayda gurubiha وإذ كذبوا قد أنزل الحق مهكما من وردت دلوفنا له نيالي ننت على محمد صلى الله عليه وسلم شمس جنت بعيد غروبها جناب صهم تيري نين يالا دفال نكو كو نيار يون يو خامنا بوتي ني جنت بي دي دم با با صو يونت نيان يالا يالا دلو وات جنت با دي am na ci boo xam ne Seydina Alioune karamallahu wajhu moom la yonentu dégg nga doon liggéeyloo mu ne ca liggéey ba balaa moo pare jant ba so am na sax ñu ne yonentu dafa tegoon ab boppam ci pooju Alioune Alioune bañ koo déranger laataa mu yeewu nag fekk jant bi sona yonentu na ko julli nga mu ne ko déedéet mu ne yow yàlla aliyun ci sa service yonentu la newoon delloowaatal ko jant bi mu mën julli tàkkusaan jant bi delluwaat ba heure cinq heures aliyun julli moom jullee ba noppi jant bi delluwaat fam newoon wa id kaddabu qad anzala alxaqu muhkama wa id kaddabu bañ weddee yonentu la ko yàlla fayee mooy qad anzala wàcc na alxaqu yàlla muhkaman aaya yoo xam ne yu ñu xereñee la te mooy de